donc bu mujj ci xibaar yi mooy li ci yéen yi kaay ki ko jàngat di Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf borom raam daan raam na ba daanu ji gendarmerie koor nday faatu jaaga bàyyi waaleek moom ak binta sekk yi coon bàllago sekk tey lay def ñetti fan ca loxoy gendarmerie yi section recherche sub Colobane bi leen observateur yéen kaay bi dañu àllarba ci guddi la ko jàpp moom coon bàllago sekk tey jii ca la ko yóbbul procureur ba xaalis bu baaxul la fekk ci moom mu di ay faux observateur dañu la ko fekkeel ci xaalis bu bon di ay dossier ak na mu demee nan la enquête kat yi def ba teg loxo coon sekk nee nañu benn Côte d'Ivoirien benn waay boo xam ne Côte d'Ivoire la fekk baax moom la ñu njoxtal mbiru blanchiment d'argent waa joojee la enquête kat yi yàgg topp di ko topp ba mu dugaleen kër coon fekk nañu fa ñaar fukki millions yoo xam ne xaalis bu baax la ak xaalis bu bon boo xam ne ba ñu ko xaymaa na ci ñeent fukki milliards mu di ay faux ba tey l'observateur nañu Côte Senghor di ko wax waxi blanchiment d'argent da koo weddi ba mu set wecc ne leen xaalis boobee ñu fekk këram xaalis la boo xam ne dañ ko koo fayoon ngir tournée bu mu war a def bitim réew Sud Quotidien nañu ko sànq moom coon sekk waykat baa ngay way lu neexut a dégg fausse note ay faux dollar ak i euro la fekk kër coon te mbir moomee bu ñu ko toppee ba fu muy mujj enquête ne nañu am na ci benn doomu Mali boo xam ne du ca set ak faux billet ya ñu fekk ca këram enquête na ci juróom-ñett lañu fa fekk ay takki faux billets yoo xam ne yii ay dollar la ya des ay euro ña ko fekk ca saalub coon libération teg ci di ñu xamal ana fan la enquêtekat yi jaar ba teg loxo coon ak ki nga xam ne moom la ca àndaloon di benn waay boo xam ne journal bi na nañu allié la tudd dëkk ca Mali coon ba ñu ko jàppee mu ne fàng ne góomub jën la main dans le sac def doon waatal enquêtekat yi nan leen xaalis boobee xaalis la bu ñu code pénal bi moo koy yor te loolee bu ko jàppee ci mbirum faux moom coon sekk juróom-ñetti kaso lu mu gàtt-gàtt dana ko def boole ceeg alamaanu ñaar ba fukki million direct info nañu coon sekk ca gendarmerie ngir mbirum faux billet loolee nag mooy le tës du siècle grand place nañu doom ja waali sekk yaram yu summeeku jamono ji yàcc la def atteere ci coow li kooba yu dugal baayam yaayu jàmbur di ay da njongu dellu na njongeen sud quotidien nañu gannaaw at ak benn weer ñu bi moom ay da njongu mujj nañu ko ragal ab deram ginnaawam bantañ bàyyi nañu ko mu dem walfa jëf nañu Aïda Ndiongue ak Assis Diop ak ñooñee ñu jàppoon dellu nañ léegi seeni kër mu mel na dara mësut a xew léegi li am mooy dañu jàpp nit si dugal ko ci kaso bi bàyyi ko fa ñaari at génne ko ba ko mu dellu këram Le Quotidien nañu Aïda Ndiongue bàyyi nañu ko waaye bàyyi googee coow dana ca topp ndax siis bee ko bàyyi waaye parquet bi moom bàyyi ko procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye nee na day def appel ndax dogal bi ñu jël ci mbirum Aïda da koo jaaxal populaire nañu bàyyi dogalub def appel boobee ci mbirum Aïda Ndiongo démb la ñu ko jël ci bureau ministre na Aïda Ndiongo nañu Aïda Ndiongo bàyyi nañu ko procureur bi ne du ca dal waa parti démocratique Sénégal moom toog di ko findu nee nañu règlement de compte yi yem ñu yem ci xëpp njëkku laa Sénégal fekk fa kàddu yi Abdoulaye Wade ci mbirum Aïda Ndiongo ak ni ñu ko bàyyee Abdoulaye Wade li mu wax laas jottali ñu ko moo di nee yàlla baax na ba juge yëpp mel ñu ne Henri Grégoire Diop Mamadou Mouhamed Ndiaye jërëjëf.